bokki marché Gueule Tapée salaamaaleykum bokki commune Fass Gueule Tapée Colobane salaamaaleykum bokki Sénégal ñun waa marché Gueule Tapée nag ñoo dajaloo fii tey ci marché Gueule Tapée di wane suñu naqar ndax dañu di ay responsable du ñu wër ci ay mbedd di def ay manifestation waaye am nañu droit daje biir marché bi wax lu ñu naqari lan moo ñu naqari diggante la maire commune Gueltap Fass Colobane ak promoteur Kërëli building ñoo am problème ban problème ñun commerçant yi li marché Gueltap yàqoo ñu war koo defaraat jamonoy Ousmane Ndoye ñun ñu am suñu promoteur ñun commerçant yi mu wax ne mën naa liggéey cantine ba mu yegg jox ñu ko gratuitement maire bi Ousmane Ndoye ni ma maire bi am na promoteur te promoteur bii ngeen jël lii mu jël lii mu wax ak yéen ba d'accord ko ak yéen promoteur maire bi mën na loolu ma ne kon ni nañu bàyyi kenn jëloon ñun fekk maire bi ci ki jël lan la ñu d'accordoon mooy képp ku fi am cantine nañu la ko delloo gratuitement ba promoteur këral yi building nangul na loolu yëmul ci loolu de ma ne ko damaa bëggoon commerçant yi nekk ci marché Gueule Tapée di liggéey bëgguma seen activité taxaw ndax boroomi njaboot lañu mun ma président noo ko bëggee mais que damaa bëggoon nga rakaase leen ku ne nga jox ko kant mu toog di liggéey te kenn du benn taxe mu ne ma mën naa nekk promoteur këral building jël ci poosam rakaase cent personnes ci kaw kanaal bi cantine bu nekk lam te fere la ci gën a néew mat na trois cent cinquante mille soo ko xoolee war a mat cent quarante millions ci kaw kanaal bi pour rakaas may doom yëmul ci loolu mu gisante ak monsieur le maire Ousmane Ndoye ñu ngi ko gërëm bu baax ne ko monsieur le maire ñun de dañu dee ay victime ndax bu ñuy tabax marché Gueule Tapée du ko defaraat te pareegul day metti ci noonu mu ne may naa leen président ba liggéey bi jeex du ngeen fay benn taxe municipale loolu am na wala amul. léegi yëmul ci mu ñëw ci taabal yi def leen loolu xëcc leen courant encore. moom Këral building ñu koy gërëm bu baax macha allah ak personnel bi yëpp góor a jigéen mag a léegi nag yàlla def ñu am beneen maire bu bees muy Abdou Aziz Paye mu ñëw nag ah diggante ak problème xam ma lañ jotee waaye mu xëy xëy démb ñëw ni day tëj projet bi te projet boobu. ñun demoon nañ ba promoteur bi ni woon fin de mois bii mois de décembre la ñuy libéré suñuy kale ñun waa ko Tap kon dugal sa bagaas mu xëy xëy ni yow da koy tëj te monsieur le maire nag lim dëkk def ci li metti man mooy maire bi fi nekkoon daf ma may ni ma li fekk marché bi di jeex doo fay benn taxe municipal waaye moom ba mu ñëwee dafa ni ma moomuma taxe bi état moo ko moom te man ànduma ak état. comme damaa contre état nag du ma maye alalu état ma xam ni wax na dëgg ma ne commissaire fay leen li nga naan fay kon commissaire du kon na fay kant bu nekk 4000 francs bëkk démb rek jaaro si mi doon ma ci témoin jaara si mi waa euh, commission ba nga xam ne moo yore finance ci commune Gueule Tapée Fass Colobane woo ma ni ma dañoo bëgg a yokk taxe municipale yi ma ne ko ci yan condition mu ni ma dañ ko bëgg a jëlee ci 4000 deux mètres sur deux mètres 4 mètres carré bi yóbbu ko ci 10 000 francs mooy ko ñun mënuñu loolu ndax dañoo ne ci ab sañte dañuy liggéey pareeguñu léegi waa Colobane tam ñoom ñu bañ a moom itam mënuñu loolu kon daa mel ni ñoom daal maire yi daal li ñu fi nekkee mooy bu jël xaalis yóbbu ci maire bi fàtte marché bi kon su fekkente ni promoteur bi daf noo may kante bu ñuy jaayee 6 millions. ñun commerçant yi mu defal na ko 5 pour cent ci lépp cantine bi war a jar soo ko xoolee mu jox la 300000 francs par cantine ñun ñëpp loolu ngeen fay wax da ngeen wax am na wala amul. am loolu mooy li am ñu war a jox suñu caabi nag maire ñëw fi bëgg démb démb ànd ak police lu mat ñett ba ñeenti kab yoo tëj marché bi fi ñuy liggéey ne ne ñëpp génn ci biti bu kenn dugg ci biir sanc bi. loolu nag moo tax ñu woote fii tey conférence de presse ndax ñun dañoo yàkkamti jot suñuy cantine ba def suñu activité te boo xoolee tey maire bi li li ma dégg mu wax ko mooy li ci maire bi am ci commune bi da koo xeeb waaye xoolal bu jëkk woon Massagol Tappé mu ngi doon génn ci recette di ko yóbbu ci biir commune Gueule Tapée Fass Colobane 3 millions 100 mille francs par mois loolu la am par mois ci marché bi bu marché bi eggee incha allah dana am ci recette 36 million par mois ne lii ne ne da ko xeeb 36 millions par rapport ak 3 millions 100 te loolu lépp nag du jóge fenn ci xanaa ci poche commerçant yi loolu moo tax ñu wax na wax lu ñu naqari ñu bëgg ñu bàyyee projet bi mu continuer ndax kanaal bii fii nañ ko war a wàcc ndax yàgg nañ fii te ba léegi ci wóoratul kon li ñuy dimbale mooy jox suñu kan yu pare ñu dugg suñu kan am wala amul. léegi loolu moo tax ñu bëgg jox suñuy cantine ñun nag monsieur le maire duñ la jàll dara lépp duñ la wax ci njëkk ak teraanga dañoo bëgg sa diggante ak promoteur bi bu ngeen di waxtaan ngeen waxtaan bàyyi projet mu jàll muy liggéey bu ngeen dem ci yoon ngeen dem ci yoon. bàyyi procès mu jàll muy liggéey mais ñun li ñuy d'accordul mooy tëj procès bi d'accord duñ ko tey d'accord duñ ko ëllëg. kenn d'accord ah d'accord ngeen ci loolu. loolu la ñu bëgg ñu bàyyi marché bi ñu kon suñu activité ndax fi ne boo xoolee marché boo xamante ni boo xoolee projet bi mat na cinq milliards te dërëmu état nekku ci dërëmu commune bi nekku fi xanaa commerçant yi dong seen xaalis parce que bu leen fàtte ni centre commercial ak nañ daan liggéey marché bu njëkk nekkul benn bu njëkk woon maire day jël kan ab marché am tabax ko ay cantine ci xaalisu commune bi di ko loué ku fayul mu nangu jox sa moroom léegi nag dañuy def centre commercial waa benn promoteur mu dem jël ay moyens yëpp wuti ay partenaire am ñu fexe liggéey marché bi jox ko ci délai. loolu nañu ñuy léegi moo tax képp ko xam ne ki jox nañ la euh, euh, marché nga di promoteur yow sa liggéey sa diggante ko ama saaya ndax tey bu liggéey ba yeexoon na pare ñun ñii nooy porte plainte promoteur bi waaye nag comme délai bi jeexagul damaa bëgg mu le maire nga bàyyi promoteur bi mu liggéey liggéeyam ngeen di waxtaan mbaa bu ngeen dem ci yoon ngeen dem ci yoon waaye ñun li ñu dëkkoorul mooy ku tëñ marché bi te nag ñoo ak njaboot dëkk ci réew mi di ay kilifa bëgguñu xuloo bëgguñu xeex te réew mi jàmm lañ ci soxla jaay doole nag bëgguñu ko ndax boo gisee Sénégal nit ñi di daw daw di génn réew mi mooy am loolu naqari te du am foo ko jooyee kon dañoo bëgg daal ñoo ngi ñu suñu loxo autorité yëpp nit ñi ñëpp jàpp bu yàlla def ndox mu sell ci lii ci Massa Gueye Tapé mais dellu ginnaaw ci li mu nekkoon. ñu toog waxtaan ñu jox promoteur mu ko ne liggéeyam libéré place yi loolu lañu soxla wasalaam. marché Gueule Tapée baraak la woon baraak boo xamante ni bu tawaan sax commerçant yi dañuy am problème on s'est avancé Mamadou Diop ñëw tabax mu taxaw li Mamadou Diop tabaxoon commencé yàqu kilifa gii fexe ba am promoteur boppam comme ni mu ko waxee ci biir wax léegi. ñu avancé ci maire Ousmane Ndoye indi promoteur bi ñuy wax Alain moo ci moom Krelling Building avancé nañ ci lu yàgg problème bi du problème de lan la ci gël Tapée di am problème bi c'est un problème personnel wax gi boo ko raayee tuuti du jegg c'est un problème personnel entre le promoteur et la mairie parce que dafa benn collectif bu fi juddu woon boo xamante ni c'était les intellectuels qu'on disait les saints intellectuels de Gueule Tapée ci la lii juddu woon avant le maire actuel di nekk maire y avait bi mu doon utiliser peut-être yéen ñi jàng di ngeen ko xam bu baax la contrat et erroné daf koy utiliser avant muy nekk maire avant muy nekk maire su ma nekkee maire dinaa effacer li fi nekk kon ñëwul pour l'intérêt de Gueule Tapée l'intérêt de Gueule Tapée mooy ñu am bisu bi au niveau de Gueule Tapée njëriñu Gueule Tapée mooy marché bi taxaw yéen ñi fi taxaw ñëpp xam ngeen ni bu marché Gueule Tapée bi taxawee environnement bi yëpp dafay jekk d'une façon ba nga xamante ni ku fi amoon immeuble booy louer tey gi à vingt mille francs mën nga ko luye à cinquante mille francs ku fi amoon benn pukus bu ndaw boo mën a luyee deux mille mën nga ko luyee quinze mille loolu mooy intérêt Gueule Tapée mais yàlla dafa am lu nëbbu ci suuf loo xamante ni xëj na nit ñi ñu ko wax ci kaw te man ragaluma pour wax ko ci kaw waxtu bi bu jotee waxtu bi bu jotee mu neex nit dina ko dégg mu naqari nit dina ko dégg dañu nekk nag ci benn xeex boo xamante ni dama ko waxoon ñii bu yàgg nit booy xeex ak moom soo ko xaaree bu jëlee devant bi ci yow rek di nga ko ñàkk lii c'était à l'avant que ñuy tëj marché Gueule Tapée parce que waa Gueule Tapée moo wax leen ko tey kenn xamul li nekk ci biir marché bi peut-être yéen suñ leen ubbilee tey gii marché bi bu ñu leen ko ubbiwoon à l'avant ngeen xam li bi nekk ci biir marché bi bu boobaa nit ñi dinañu xam lan moo xew biir marché Gueule Tapée et c'est la première fois c'est la première fois que le maire teg tànkam ci biir marché bi c'était hier mënoo fi def deux ans defoo état des lieux visitoo woo xamoo lu nekk ci biir marché bi et tu te lèves le matin nga tëj marché Gueule Tapée en ans que ni loo fii kenn du noyyi fii kenn du def nangam ay architecte bi defar lii est-ce que moom da doon nelaw bi muy defar lii architecte bi def plan bi ba nit ñu mën ko approuver est-ce que da doon nelaw pour ñu def lii le président des architectes du Sénégal defar plan et tu poses la question ni fii kenn mënu fi nooyi non da ngeen waroon am temps parce que lii du tey parce que yéen ñi fi nekk ñëpp xamu leen li nekk biir merci Gueule Tapée est-ce que xam ngeen ko. non moom mooy li ma lay wax cantine yi nekk ci suuf yëpp pare na. yëpp pare nekk ci suuf mais yëpp pare na. tey gi bu ñu leen defaree conférence de presse amu leen amu leen pièce buy wane ni cantine yi pare na da nga ko waroon def à l'avance sa conférence de pour ubbil leen marché bi ngeen dugg ci biir xam li fi xew lan la bu boobaa di ngeen ko woon population Sénégal Gueule Tapée ñu xam ne lii moo fi nekk place bu nit di jaayee géej gi yéet ak nàngam eh, ñu defaral la ko d'une façon ba nga xamante ni suñ ko jénne woon tey gi ci téléphone yi da ngeen naan non lii euh, maquette la kenn nekkul ci ginnaaw li na dafa am ay personnes y de des personnes y a des personnes je bien et je pèse bien mes mots yu nekk ci ginnaaw lii pour seen njëriñ mais njëriñu Gueule Tapée mooy bijou bi yegg njëriñu Gueule Tapée mooy tey gi mais jënd leen ci mbeddu Gueule Tapée yi ngeen xool fan la ñu teg ay nit pour ñu pour ñu fiy pour ñu fiy jaay eh ñëw leen fi à 5 heures du matin vous voyez les gens yu nelaw ci biir cantine yi nga xamante ni ñu ngi leen teg ci biir kanaal bi fii ci kaw kanaal bi fan la ñuy demee douze seeni besoin fan lañ koy defee mais eh, àq bi nekk ci mbeddu Gueule Tapée yi ba kañ ba kañ lii du àq tu te lèves à quatre heures du matin tu entends tak tak tak man dañ ma ko dañ ma ko man ci ñi daaneel marché Gueule Tapée man ci laa bokk eh, dama koy yuuxu ci kaw j'ai failli même riir dama ci tay la sama bakken bi ma koy def wallahi yàlla moomu tiim dama ci man nit woo na ci bureau ma ci kilifa yi wax nii pendant cinq minutes avant may jël sama kàddu ay saaga rek la def pour intimité ma man pour ma jënd ci marché Gueule Tapée mais yàlla dafa def sutura Massaer ki koy tiital néew ma yàlla sàkk ko mais gisaguma ko pendant cinq minutes avant may jël kàddu yi ay saaga rek la def je lui ai posé la question ndegam danga ma woo ma toog pour nga saaga mu ne ah ma ne ko dama bëgg xam ndegam sa bureau bii nga ma dugal ma toog danga ma fi woo pour ay saaga mun a tekk di ma déglu ma ne ko sama engagement moo jiitu li ngay def nii avant ngay ñëw maa ngi fi te boo demee da nga fi bàyyi kenn mënu intimité ba ma jénne benn yoon virgule ci marché Gueule Tapée bi may xeex ay sax moom li fi tegu yépp tegu ko fi benn virgule tegu ko fi li fi tege amul dara lu mu fi teg. li da leen bàyyiwaat foofu ñu nekkoon ba kañ. travaux yi la tëj. yëpp la tëj léegi ñi fi nekk ci mbedd yi di jaay fii ngeen gis gël tàpp fu nekk nit bëgg fa toog di jaay dañ leen fay teg ba kañ. man man en tant que riverain li may njëkk a def je vais une pétition au niveau de Gueule Tapée man en tant que massailleur je prends mes responsabilités du ma jàll baat nit du ma xas nit du ma wax kenn te ñoom ñi fi nekk ñëpp amul kenn ku ma ci ëpp fit pour ma def li ma bëgg def mais ci yar ak teggin taxawaay bi may njëkk def mooy damay def pétition au niveau de Gueule Tapée commerçant yi dañuy def pétition au niveau de ñoom ñoom ñëpp ànd ngeen pour ñu tabax marché Gueule Tapée si on en le voit qu'on bi ñu soxla pour pétition bi dañ koy attaquer directement pour lii yegg te lii dafa am lu làqu ci ginnaawam c'est à l'approche des élections c'est à l'approche des élections foofu lay tëjee sama kàddu jërë ngeen jëf